ngeen jëf mbokki Sénégal mbokki bitim réew asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yéen ñi ko suivre lamb actualité lamb te di ko suivre ci télévision bu mag bi nga xam ne moo di Bawal TV jeudi le 10 septembre ci atum 2020 ñu koy ñëw ak yéen ci journal sunu lamb fekk di fay avision am solo nouvelle bu bees bu ñuy xaar ci combat bi dox ci diggante Modou Anta ki nga xam ne moom moo di Diène Kairé ci saison bi ñu jëm waaye 3 victoires de défaite école de lutte bi ko am moom moo di école de lutte ci mboore waaye ki nga xam ne nii moom moo di Balla Gaye 2 ñu fekk ko fa bel ci xëtum sunu lamb ñu xam ne kii di Balla Gaye 2 ki nga xam ne moom moo di Eumeu Sène def ko sëlam li nga xam ne moom moo di ab saabo waaye ki nga xam ne nii moom moo di Bombardier dafa tur retourné ki nga xam ne moom moo Balla Gaye 2 ba ci li xam ne moom moo di couronne roi ba ki nga xam ne nii moom moo di Gris Bordeaux la xam ne moom mooy du bëre ñaari mukk waaye ki nga xam ne nii moom moo di futur de CNC deux acteurs présenté le profil de CNC bokk ci ki nga xam ne nii moom moo di Amadou Mbaye la mu xam ne mooy bokk ci candidature yi CNC waaye ki la moo xam ne moom moo di xam ne moom lañ war waxtaane waaye ki nga xam ne nii moom moo di Serigne di axe profondeur de CNG la mu xam ne moom mooy bëgg naa yor CNG waaye lañ ca xam ne mooy moom moo di Serigne moom ay ay démarche am àndut ak li nga xam ne nii moom mooy di yor wàllu CNG bi waaye ba tey ci xëtum laa mu niñu nga xam ne moom moo nga xam ne moom moom moo di Ndandi Fall waaye ba ki nga xam ne nii moom moo di Balla Gaye 2 ñu xamal ne dem mi ci tranquille foofee nga nga xam ne nii moom moo ki nga xam ne nii moom moo di nga xam ne nii moom moo di Forza itam ña wa ko Gris jox ma sama xaalis baa nga bëre Gris Bordeaux di ko ne ko Gaston Mbengue mën bëree lu ma la tey bëree lu ma la suba waaye ba tey ci xëtum record ñu ñëw fekk fa ki nga xam ne ni moo di Abdou Gueye coach su équipe de défense ki nga xam ne moom moo di Gris Bordeaux dafa def ay erreur yu bëree bëree bëree bëree waaye ki nga xam ne ni moom moo di Serigne Ndiaye de na góorgóorlu ngir mën a gagné li nga xam ne ni moom moo di combat bi ñu yëm yéen ñi ko suivre lamb actualité lamb te di ko suivre ci télévision bu mag bi nga xam ne moo di Bawal TV du ne kenn bu ma topp waaye ku jooy dëpp la ko dalee Thiès xombal bambayal tundangal mag sew